ginnaaw bi sëñ bi woojoon digal yi si soññee di fàttali bisu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ñun nag liñ ci sëriñ bi cërale woon wàllum bernde daa bi sëñ bi woote lifan leen la juróomi at wax dëgg yàlla ni nga def mooy bokkoo jaamu yàlla yi ñëw fi ci baas wilaaya waaye mboolem ku ñëw ci bi rek li ñu mën ak li ñu am danga bokk yow loolu ma doon daal suñu liggéey wax dëgg yàlla waaw ba tax ne tam sant yàlla ndax bis bi ku ci kuñ ci woo ngir nga liggéey wala ngir nga jaamu yàlla awat nay bernde yaakaar naa taw féex rek magu ko kon daal loolu rek moo xam ne moo doon liggéey wax dëgg di ca namu nag ah, ngërëmal yàlla ak fayu sëriñ bi ndax sëriñ bi nga xam ne moom la ñëpp yaakaar tax lépp am moo ne woon képp ku ci def loo xam ne sa dërëm wala loo xam ne lu ngi lekk lu ñaan la suñ borom bu la fay ëllëg da mel ne ku xeex xare badar ak wax nay ni ñu namu ci nag lépp nag boo ko digal li nga xam ne am na gësën bi boo boogoon ndigal sëñ Tuubaa lépp na jëmu ci kenn ku ne sallallahu alayhi wa sallam moo doon suñu wax dëgg yàlla kon noonu la ma dem soob yàlla waaw waaw